asalaamaaleykum chers amis internautes de la Saint-Louis TV ñoo ngi am ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte a contentement di partager ak yéen seen premier numéro bi seen émission noonu ko waxtaanee. tey nag ñu fas yéene waxtaanee benn thème bu am solo muy la reprise des cours en cette période de Covid 19 maanaam dellu bi nga dellu bi nga xamante ne xale yi war nañ ko dellu si école yi si jamono ji nga xamante ni feebar bi di coronavirus mi ngi continuer di wéy di lor ak di faagaagal. Nous faisons un ànd ci waxtaan bi madame la proviseure du lycée des jeunes filles à Merfal. madame vous êtes lay nuyu. maa ngi lay fayaana. di la nga présenté beaucoup ak mbokku internet du lycée. seetaan. waaw maa ngi Sy euh, proviseure du lycée des jeunes filles à Amer Fall euh, le service au euh, mois d'octobre 2019 après. cinq ans yi nga xam ne exercé naa ko comme proviseur au lycée de Bambilor dans le département de Rufisque. Euh, madame la proviseur madame la proviseure du moins gannaaw bi nga xamante ni ministre bi annoncé na dellu bi nga xamante ne xale yi moom la ñu war a dellu ci école yi ci jamono ji nga xamante ne comme ni ma ko waxee feebar bi moo ngi fi ba tey di lor yéen en tant que membre de l'administration tey yan yan matukaay ngeen ciy jël jëmale ci professeurs yi nga xamante ni ñooy taataan xale yi. ak aussi yan matukaay ngeen di jël jëmale si ndongo yi pour daral seen xelu waajur yi. waaw ñun dañ fi toogal état ñuy waxee ñuy représenté ministre de éducation fii ñu am tamit si li nga xam dañ ci tënku mooy protocole sanitaire bi nga xam dañ ñu ko jox wax ñu li ñu war a def bu bu matee jàng mën a am. bu matul tamit ñu xaar ba mu mat waaw si loolu nag eh, am na li nga xam dafa concerner professeur yi ak personnel administratif bi am na li nga xam dafa concerner élèves yi mooy lan lépp li nga xam war nañ mën a aar ba jàngoro ji duñu dal ñu mën ñu matal ko mooy am masque yu doy alhamdulilah masque yi mat na ñu am thermoflash bi nga xamné sa température Nous avons euh, aussi un environnement cadre bu set mais xam chaque jour dañ koy Nous avons désinfecté am tamit salle d'isolement amna importance mais xam bo amé cas bo suspecté pour nga koy def mëna d'accord accord euh, pour nga baamtuwaat ko euh, salle d'isolement bi ci biir école bi lay nekk wala. waaw yàlla def nag dañu am infirmerie macha équipé donc euh, dañ koy defaraat rek bu mu gën a baax am nañu ñaari salle benn bi la ñuy réservé am na ay lii ak yëpp lépp lu mu war a am am naka donc cas yooyu foofu lañ prévoir pour yóbbu leen fa. d'accord j'espère bien que parents yi ñuy seetaan bu ñu déggee li nga wax ci côté boobu seen xel dina gën a mën a dal euh, ci wàllu méthode ci wàllu méthodologie jàng bi maanaam tey jii nii ak euh, feebar bi nga xamante ne bi mu duggee ci réew mi au mois de mars élèves jotuñu woon jàng lu bari benn deux trois mois lañ jotoon jàng ñu reprendre nara cumuler cours yi nga xamante ni rëcc na leen ak yiy ñëw si kanam euh, tey ban ban méthodologie ngeen di adopté par rapport ak à ça concernant la réduction horaire de cours Wow, euh, ñun yàlla def na fii Fall euh, ubbi tey jàng tey la ñu donc vraiment nous nañu en avance sur le programme même classe intermédiaire yi parce que am naa ci doom gis naa ne ñu bëri ay ñaari leçon ñetti leçon si matière yu bëri moo leen dese donc inquiétude sur ce côté boobu. bu dee élèves yi def classe d'examen tamit apprendre à la maison ñu ngi koy wax ci télé yeeg ci internet bi waaye tamit professeurs yi ku nekk sa élève yaa ngi créé ay groupe ay groupe whatsapp wala yooyu yu demee naka noonu nga xam ñu ngi continuer di échanger ak ñoom donc jàngale bi mu ngi continuer voilà si xale yooyu nga xamante ni dañoo nekk en classe intermédiaire si ñuy ñëw mooy ñi nga xamante ni defuñu examen ren mais dans deux déwén wala dans deux ans peut-être dinañ ko def te moment yi gis nañu état waxagul ci ñom waxagul ci sen domaine léegi euh, yéen yan yan yan yan ban solution nga mën apporter par rapport à ça ci xale yoy nonu nga xamanteni dans deux ans dinañ dinañ préparer examen. waaw mom junj naa ko léegi sax li ñuy wax apprendre à la maison état bi donc jël nañu euh, ay ay ay disposition yi nga xamné daa ñu mën a jàng ñi nga xam te mën ñu accéder ci média yi euh, am na tamit euh, yi nga xam ne euh, ay support de cours yi nga xam mettre nañ ko à disposition des IA des ak des IEF pour ku nga xam ni mënoo xool ci amoo télé wala internet nga mën a dem foofu ñu jox la ñu tiiree la jox la nga mën a jàng waaw. est-ce que est-ce que tey jii nii professeurs yi nga xamante ni ñoom ngeen seex ak liggéey ñoom ngeen seexal liggéey bi est-ce que pare nañu pour jàppale leen ci combat bi carrément. Euh, keroog bi ñu naree reprendre le def nañu réunion ñëpp toog ñëpp ñëw ñu waxtaan macha allah am nañu adhésion ñëpp euh, je crois que ñëpp euh, pare nañu vraiment pour jàpp ci liggéey bi def ko ni mu waree. si noonu demoon nañu am reportage ak benn professeur bu ñuy wax monsieur Thiam pour mu wax ñu moom aussi AVM concernant reprise de cours yi dañ leen di bàyyi juste su ngeen dem xool élément bi ñu dellu si waat si waxtaan bi. salaamaaleykum euh, ñoo ngi lay nuyu di la ziar encore une fois di di la bàyyi nga présenté wu ak mbokk téléspectateur. waaw jërëjëf soxna si euh, c'est Mame Samba Cham, professeur de TQG au lycée technique André Pétavin. Euh, tey jii nii gannaaw bu ministre bi dafay communiqué annoncé seen dellu si si daara yi yéen ñi nga xamante ne yéenay taataan élèves yi est-ce que dispositif yi état jël tey jii dal na seen xel. waaw loolu moom parce que nous sommes des agents de l'État Nous sommes suñu lycée vraiment dispositif pour l'État état bi jël euh, parce que nous avons des masques et un système de lavage vraiment ça va nous permettre d'accueillir les élèves dans de bonnes conditions Nous sommes suñu établissement au niveau du lycée nous André Pétavin voilà. Euh, d'accord yeen euh, liguey bi du nek yeen kasse yeen la ak élèves yi tay yi ni yeen yeen yan xeetu comportement ngeen di xaar par rapport ak ñom pour ñu comporter wu ko ci biir classe bi de même que si biir école bi. voilà xam nga affaire yi Covid moy moy moy problème bi instant bi mais euh, so demee suñ établissement dañu am benn comité de suivi bo xamné bu élève yi ñëwee ñoo leen di defal genre briefing quoi comment l'élève va se comporter au niveau de la classe, en dehors de la classe. loolu vraiment on a réglé ce dispositif il y a pour nous élèves yi le 25 c'est-à-dire le jeudi lépp dina jaar quoi. d'accord léegi dafa am un phénomène boo xam dañ ko dañ ko daan faral di travail de groupe te ku xam Covid 19 xam ni mayewul rassemblement te élèves travaillent travail de groupe bi da ko daan dimbali sur lu parce que le ko daan rëcc ci ci cours bi euh, travail de groupe boobu mu daan am ak moroomam yi moo ko en tant que professeur qu'est-ce soppite ngeen siy djel par rapport à ça pour dimbali len voilà c'est moom dina xaw difficile mais nak xam nga ñun ay jàngalekat lay on a des méthodes pédagogiques qui vont nous permettre vraiment ñu accompagner len ba examen yi ñew inshallah euh xam naa ne dina xaw difficile mais inshallah peut-être avec des cours à distance ou bien. ñu jox ay TD yoo xam ne dañ koy def seen kër après ñu rendre ñu compte vraiment dañ leen jàppale ba incha allah daal lépp dina jaar yoon. d'accord incha allah merci beaucoup monsieur Thiam ñoo ngi lay jaajëfal encore une fois si dalal bi ñu dalal. waaw li mu wax am na solo je crois que loolu la xaar ci ku ne nga am réaction bu positive euh, école boo dem am na ñuy wax comité de veille et d'alerte ñi nga xam ne ñoom ñooy toppatoo. ku sol masque ndax raxasu nañu ndax amul di la poser question xale di waxtaan ak ñoom di sensibiliser donc di laaj ku ne sa yaram nu mu def donc je crois que dispositif boobu am na fi te ku ne am na lu ñu la sant ñi ñooy surveiller couloir di xool ndax am na ñu sol ak ñu solul ñi ñooy taxaw ci bunt bi xool ndax raxasu nañu donc vraiment organiser nañ ko de sorte que même professeur yi ñi nga xam ni jàngale jox jox suñu jox jox leen classe sax fi mu toll nii ñoom ñu ngi ci dispositif ci ci dispositif bi ñoom am na leneen lu ñu leen sant ñii ñu ngi ci infirmerie bi ñii ñu ngi ci thermoflash bi ñii ñu ngi ci leneen. d'accord mais euh, jàng bi xale yi war a jàngiwaat am na parents d'élèves yu bari yoo xamante ni am d'accord ñu ci à 100 pour cent peut-être dañ ci amul pexe bàyyi seen doom yi ñuy dem jàngi parce que moo fi sës mais à 100 pour cent d ñu ci puisque. feebar bi ba tey mu ngi fi continuer nekk di wéy di lor comme ça léegi yéen lan ngeen di en tant que membre de l' administration tey parent bi toog di la seetaan lan nga koy wax pour dalalee ko xelam. waaw ñun en tout cas ñu ngi def suñu kéemtalaay kàttan classe yi bu daan def 40 élèves xaaj nañ ko yàlla dafa def sax ni Ameth Fall macha allah suñu effectif yi rëyul trop terminal par exemple maa ngay gis classe bu dépassé 40 élèves donc xaaj nañ.

salaamaaleykum soxna si ñoo ngi lay nuyu di la ziyaar bu baax nga baal ñu fàttali ñu tur bi. maa ngi lay delloo nuyoo dina la delloo ziyaar bu baax man la madame Amina Badiane Diouf euh, mère de deux enfants donc parent d'élèves évidemment euh, gannaaw ba ñu defee taxaw seetlu ci mbas mi nga xamante ni dugg na ci suñu réew lëmbee àdduna muy coronavirus ñu arrêté activité yu bari rawatina jàng bi ba tey ji ministre bi def communiqué wara a xalé xale yi si l'école yi le 25 juin prochain yéen en tant que parent ana lan moo si seen xalaat. Euh, je salue la préoccupation du ministre ci li mu bëgg yi dans les classes dellu si seen njàng bi pour seen éducation mais man bu doon sama sagoo daal ñu xaar ñu xaar ba kanam parce que faire des ngi c'est bi ba cas ni ñu ngi gis pourcentage yaa ngi yokku cas yaa ngi yokku euh, et les enfants sont vraiment vulnérables bu doon sama sakoo ñu xaar daal. su ma déggee sa wax bu baax daa mel ni euh, pareegoo carrément pour njaboot gi dellu ci école yi lan moo waral loolu. waaw man moom en tant que parent je suis pas d'accord pour que xale yi dellu classe euh, maintenant parce que comme je l'ai dit tout à l'heure feebar baa ngi ci dëkk bi encore xale yi dañoo vulnérable te matuka yi ñu war jël je ne pense pas que mën nañ ko jël ba nga xamante ne disposition yi xale yi mënuñu leen maîtriser de sorte que ñu bañ a nekk ñu nekk ci classe yi sans pour autant contact bi parce que c'est euh, mal feebar la bi nga xamante ni nee nañu contact bi lañ ci lañ ciy bañ salte bi lañ ciy bañ donc tout ça là c'est c'est c'est des paramètres yi nga xamante ni vraiment war nañ ci tenir en compte bu baax balaa ñuy delloo xale yi ci classe yi d' accord mais euh, comme ni ñu ko tout problème a une solution léegi euh, yow tey en tant que parent euh, yan yan yan précaution nga doon xaar ci état bi yan condition nga doon xaar ci état bi pour mu jël ko ci xale yi ba nga xamante ne en tant que parent d'élève tey bu sa doom génnee dem jàngi sa xel dina dal yan solution nga mën a proposer ci loolu. ah man nag la seule solution que je vois mooy kenn xale yi ñu bàyyi ba mois d'octobre ñu xool programme bi nan lañ koy euh, de façon pédagogique nan lañ koy dérouler ba nga xamante ni xale yi dinañu rattrapé wu euh, li leen dese woon ci année scolaire bi ñu mën ko def baye fête yu bruit, euh, donc nous jàngal vraiment euh, intensivement ces année bi parce qu'ils se sont quand même assez reposés Nous ñu jàngal euh, année prochaine nous rattraper année bi mais bien vrai que dinañ ko dinañ ko valider mais le classement man je trouve pas que c'est une solution parce que mesure d'accompagnement yi ci la dernière fois bi ñu jappé date man même si les classes ont été désinfectées même s'il y a eu des gels du savon et tout y a les transports xalé dañuy jël transport dañuy dem dañuy dik dañuy jaxaso ku si nekk si kër ngay jóge ku si nekk on ne sait pas combien de personnes ngay rencontrer balaa ngay yegg école donc loolu rek taxna man ma mais lu mënul ñak faw mu am te fiñu tollu ni yaakar yaakaar nañ ni jangi rek mo fi sës euh, par rapport ak euh, concernant état bi légui yow en tant que parent d'élève te yeen précaution ngay jël c'est responsabilité yan responsabilité ngay jël ci sa njabot bu ñuy génn di dem di jangi lan nga di lan nga leen di ñaaxee euh, j'ai eu la chance d'avoir mon enfant dans une école privée donc il n'est pas obligé moi je prends des cours à distance Peut-être peut-être cours à distance c'est valable dans le monde rural euh, dans le monde euh, urbain donc monde rural par exemple nous ci accès peut-être nous, forcément dañuy mais on peut dire que nous aussi parce peut-être ils sont assez déjà isolés donc euh, man daal li ma lu ma lu ma la wax léegi moom laa lay répété waat dem classe pour le moment c'est pas une solution on a qu'à gérer cette pandémie d'abord balaa ñuy jàll ci leneen balaa ñuy jàll ci éducation wala ñuy jàll ci nañu lijjanti santé bi instant bi ba pare. d'accord mais euh, du parents yëpp ñoo am ñoo am possibilité dugal seen école ci école dugal seen doom du moins ci école privée bi nga xamante ni leer na leen ni bu ñu toogee si kër gi seen xel dina dal euh, si condition yi xale bi di nekk tey lan ngay ban ban message ngay ngay ngay lancer pour parents yi nga xamante ni seen doom dafa nekk si école publique war a génn si kër gi dem jàngi. justement man parents yooyu lu ma leen di wax mooy nañu téye seen ay doom nañu téye seen ay doom man d'accord ma xale yi dellu classe encore une fois <laughs> d'accord ma xale yi dellu classe nañu téye xale yi ba mbas bi jàll. On n'a qu'à gérer la pandémie d'abord avant de gérer l'éducation. Parce que moi, personnellement, je préfère sauver des enfants, des vies, que de sauver une année scolaire. d'accord Sohna, euh, Amina encore une fois de la merci beaucoup aussi accueil euh, surtout les comportement élèves nga waaw ñu je crois que élèves yi bis na ñu ngi gis télé bi ñu ngi gis rajo bi li ñuy wax ma am yaakaar ni xam nañu li leen war ak lu ñu war a def lu ñu warul def waaye n'empêche ñun bu ñu ñëwee première heure bu ñu ñëwee par exemple bu ñu ñëwee dugg si 9h 9h ba 10h bu ko jaree sax ba 11h heure dañ koy consacrer sensibilisation gën a waxtaanam def ay équipe ku ne am foo dugg ñu gën a waxtaan ak ñoom jar na sax bu ñuy demee euh, euh, personnel de santé parce que poste de santé bi ñëwoon nañ fi vraiment pour wax nit ñi dis ak bajenu gox yi mën nañu accompagner ci sensibilisation ñu waxtaan ak ñoom dalal seen xel wax leen gest barrière yu ñu war a vraiment adopté naa daañ ci dox ba te te ñu xale yi tamit am nañu vraiment discipline loolu am nañu chance boobu am nañu yaakaar tamit ne niñ ñu leen ko waxee daañu ko defee noonu. Hmm. incha allah euh, léegi examen yi nga xamante ni ñoo ngi koy waajal dans très peu de temps deux ou trois mois euh, si côté pédagogie maanaam wàllu jàng bi xale yi yan yan yan genre épreuve nañu nañu mën a euh, toog xaar ko taataan ko daal. waaw je crois que bac moom yi ñu daan def rek la ñuy def sauf bu amee changement mais pour l'instant waxaguñ dara mais épreuve yi ñu daan def moom la ñuy def mën na am nak ñi ngi wax ay programme allégé mën na am ñu gën ko allégé waaye amna par exemple am matière xam comme histoire géo programme dafa vaste mën na am tam ñu par exemple prof yam am leen fii leçon bi nga xam ni vraiment élève daañu mën a jàng réviser correctement pour mën ko def voilà si question bi lay revenir demoon ñu lycée Faidherbe pour am ben reportage ak ben élève bu am dafa nekk en classe de terminale pour mu wax nu ñoom aussi yan attente nañu xaar si si si gouvernement bi

gannaaw ba nga xamante ni feebar bii di coronavirus génn na suñu réew ñu arrêté jàng bi le 2 mars passé ba tey jii nii ñu bëgg leen delloo ci école yi ngeen jàngiwaat ana tey si condition yi nii ana tey yan ana tey yéen lan moo si seen xalaat est-ce que pare ngeen carrément pour delluwaat jàngi si condition yi nii. waaw condition yi moom euh, taxut a neex noonu noonu parce que xool feebar bu am ñu ne la tey da ngay dem ci école yi nga dem jàngi. ci feebar boo xamante ne ay mbooloo lay bañ et tout dina dinañ xaw jël benn risque boo xamante ni nu tey nan la nan la ñu mën demee ak suñu côté mais comme que dañu jël ay dispositifs yoo xamante ni ci école yi comme genre tey boo dee dugg ci école bi da ngay da ngay raxasu ñu testé la xool ba pare nga dugg te booy dugg ci classe yi il faut que nga takk masque ba pare yaakaar naa ni daal dina mën a xaw tene mais yéen est-ce que tey ji pare ngeen pour respecter. condition yi nga xamante ni précaution yi nga xamante ni état jël na ko si yéen lu si mel ni port de masque bi lu si mel ni euh, euh, arrêté saafonte bi lu si mel ni ay yeneen a yeneen est-ce que pare ngeen carrément pour jël seen ay précaution si loolu. waaw mën nañu wax pare nañu comme mën nañu wax tamit pare wuñ parce que xam nga tey jii ngay gis ay xarit et nga daan ñëw di leen nuyu di saafonte ak ñoom tey ñu tere la ko dina xaw a métti si benn côté daal. mais comme li ñuy wax rek bakkan jaam la bëgg te ku nekk daal sa wëgg yaram moo la gën a lu nekk yaakaar naa dinañ mën def attention ci loolu noonu. d'accord léegi yéen euh, comme ni nga ko xamee élèves en classe d'examen surtout classe terminale day faral si yenn si seen ay module da ngeen faral di ko jàng en travail de groupe di ko defee en travail de groupe entre élèves parce que loolu moo leen di genre moo leen di dimbali daal parce que du du li nga jàng ci classe bi yëpp ngay mën a am dina am yenn yu la rëcc léegi travail de groupe boobu ci ngeen mën a concerté wu pour pour def ko n'est-ce pas yéen tey ana yenn changement ngeen yenn soppite ngeen fas yéene jël par rapport à ça. waaw moom moo gën a xaw a doy waar parce que tey jii am na ñoo xamante ni bu ñu toogee ci classe euh, duñu duñu comprendre comme duñu comprendre vite ku nekk ak li la yàlla may. te am na ñoo xamante ne travail de groupe la ñuy gën a mën a comprendre seen ay idée et tout tey bu fekkente ni dañ dem ba nga xamante ne am na benn feebar boo xamante ne daf ñu koy tere dina xaw a metti mais yaakaar naa bu ñu duggee ci réseau sociaux yi comme genre ñu nekk WhatsApp créer fa benn groupe boo xamante ni mën nañ fa def suñu travail de groupe et yaakaar naa daal dinañ ko mën a gérer foofu. waaw loolu moom c'est une c'est une très bonne chose c'est une léegi. dafa am tamit beneen phénomène mooy que ni yéen li ngeen jot jàng si année bi nest pas bariwul woon benn trois mois ngeen jàng après si la feebar bi ñëw ñu arrêté lépp euh, yan yan attente ngeen am par rapport ak prochain examen prochain bac bi nga xamante ni euh, moom ngeen war a def yan yan yan yan attente ngeen am si épreuve yooyu noonu yaakaar ngeen mu doon lu yomb wala. ah ñaan nañ yàlla yomb trop parce que booy xool li ñu jot jàng bariwul premier semestre kese lañ def te examen dafa laaj euh, ay. li yu bëri daal comme genre ni nga daan ñëwee def premier semestre def deuxième semestre commencé sa ay travail de groupe wala travail personnel yoy non tay nga ñëw def ben semestre cassé après ñuy laaj ba xam dina mëna continuer et tout dina xawa metti mom wax dëgg yalla dina xawa metti mais yalla baxna ñoo ngi xaar que épreuve yi yomb mu abordable daal. légui yéen après le bac inshallah ban ban ban cursus scolaire ngeen di xaar parce que Sénégal gis nañ fi benn tendance mooy que ni en temps normal sax boo defee bac ba pare pour nga am orientation problème lay nekk moo xam université publique la wala privé euh, rawatina période bi nga xamante ni coronavirus bi moo ngi fi di continuer di wéyal di lor di faagaagal waxagul waxu jóge fi ne daal léegi yéen ban ban ban cursus scolaire ngeen di xaar après le bac par rapport ak orientation. waaw orientation abordable parce que tey jii nii bu fekkente ni da ngay dem genre beneen dëkk comme ni ñu tey tey la ñu bàyyi daal di arrêté dëkk yi comme ñuy dem ngay dem comme lu si mel ni nga jóge Saint-Louis dem Dakar mais bu fekkente ne xamuñu ba xam ñaan yàlla feebar bi dem mais xamuñu tey jii nii euh, fan lay mujjee ak ñun mais daal ñoo ngi ñaan yàlla tamit orientation yi mu xaw nekk suñu faveur daal. d' accord soxna Khady ñoo ngi lay jaajëfal encore une fois si nangu bi nu nangul suñu reportage bi ñoo ngi lay jaajëfal encore une fois bu baax a baax merci beaucoup à toi. tey jii nii yenn ñenn ñi nga xamante ne dañoo bokk si membre de l' administration wala élèves yi nga xamante ne dañu fiy jàngee yore yenn maladies yi comme yenn maladies yi nga xamante ni dañ koy faral di gis tey yan précaution ngeen di jël concernant élèves yooyu noonu. waaw yow itam boo liiree recommandation yi ñu jox. ñi nga xam dañu am yenn feebar yu chronique yi asthme asthme yu chronique yi yeneen feebar ak ak diabétique yi nga xam ni seen diabète peut-être yi gën a fenn ak yenn feebar daal yi nga xam ni daal peut-être dañ dañ daf leen di exposé ñooñu dañ leen di jéggal bu dee jàngalekat yi wala personnel administratif dañu ñu toog seen kër bu dee élève dañu toog seen kër mais dañ leen di accompagner dañ leen di accompagner di leen jox les supports de cours di leen defal ay exercices ñu koy def di rendre di leen aussi à travers euh, le net voilà. d' accord tey en tant que membre de l'administration, administration boo amoon solution booy apporter un petit plus si euh, précaution yi nga xam ne état jël na ko lan lay nekk. waaw li ñu mën a def mooy yokk waxtaan ak élèves am na ci solo euh, gën a farlu farlu bi mooy ñun ñun la concerné te bañ di tenir yenn discours yi nga xam dina tiital xale yi wala muy tiital parents yi en tout dañu wara tenir un discours qui rassure waaw loolu mooy suñu suñu warugar je crois que bu ñëpp rassuré rek daañu mën a exécuter correctement liñ leen sant di ñaan tamit yàlla muccal ñu ci ci Covid. d' accord madame la présidente dañ lay bàyyi juste nga tàggoo ak askan bi. waaw maa ngi lay remercier Anna di remercier Saint-Louis TV. di invité parent yi vraiment ñu ñaaxaat bu baax seen doom yi ci comportement bi ñu war a am kër gi ba école parce que loolu mënuñu ko contrôler ñu ñoom ñoo ko mën a contrôler di ñaax tamit bu baax jàngalekat yi vraiment bu ñëwee tamit ñu gën a jàppale xale yi euh, pour que ñun ñëpp ñu mën a ensemble duma ni la Covid 19 mais si nous bi ñu euh, réussir le pari parce que pari là, waaw li nga vivre c'est la première fois je crois que buñ ci buñ ko sans difficulté je crois que c'est euh, une victoire donc si nous mën nañu am victoire sur sur la Covid 19. si nous dañuy ñëwee tàggoo ak yéen mbokk internet yi juste di ñaaxaat élèves yi ñu jël seen ay précautions parce que bo demee ba nek en classe de terminale tu es assez responsable pour jël say propres précautions ñu leen di ñaax juste ñu ñu doli ñu doli fagaru te respecter conditions yi nga xamanteni tégal nañ leen ko yépp bi ñuy jógee ci kër gi ba kérok ñu yegg ci école bi di leen euh, jaajëfal encore une fois ci tewlu bi ngeen leen tewlu seen émission nan ko waxtaanee di leen jox dig dajé très bientôt du yag dara ci seen benen numéro. bu seen émission nañ ko waxtaanee.